ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën jot yooyu la notification. waaw salaamaaleykum amis de fidèles internetu Caaroy ITV tey nag dañoo ñëwoon wàcc sur le terrain fa yéene waxtaanee élection locale yi nga xamante ne moo amoon dimanche passé léegi na dama ànd ak sama caméraman ñu dugg tey si koñ yi kan wi pour xool na la ñu jàngatee élection yi. Euh, mën nañu xam nan nga jàngatee euh, résultat yi nga xamante ne moo xewoon dimanche passé ci élection locale. waaw jàngat bi ñu ci am moom mooy euh, tout d'abord dañu sant yàlla bu baax a baax parce que d'habitude dañu doon gis élection yoo xamante ne bon dañuy noter ay violence de part et d'autre mais fii si Djiddah Thiaroye Kaw lu ñu mun a noote moom mooy alhamdulilah quoi gisuñu si violence tamit yëpp jaar na yoon daal sama gis-gis yëpp jaar na yoon vraiment waaw tamit. bon euh, mun naa wax ne ça le meilleur à gagner parce que Djeddah Thiaroye Kaw instant bii nii dañoo choisir un nouveau maire. waaw jàngir bi rek ah euh, ça se voit que dama gis benn peuple mature benn population boo xamante ne vraiment effet des consciences bi ça se voit que ni vraiment tey jii ñu ngi ciy amélioré bu baax a baax a baax a baax parce que li ma gis rek mooy ne que nii waxuma la sax Sénégal mais Afrique dañu war a am benn nouvel élan boo xamante ne par rapport ak li nga xamante ne euh, li am si suñu géopolitique bi. tey dafa dañuy wan ne carrément tey jii nii bi dañuy effet yow peuple bi dañuy bëgg changement te aussi tamit peuple bi dañoo sanctionné ñi nga xamante ne ñoom ñoo suñu état bi. élection yi moom na yoon léegi moom kenn sonnatul ku liggéey ñu la ku liggéeyu rek ñu folli la carte yi ñooy fal ñooy folli jeex na tàkk loolu rek laa ci xam ku fi toog tamit na nga liggéey rek soo liggéeyul tamit fi ñu jaarale ki ci des ko foofu rek lañ lay jaar waaw yi waa alhamdulilah ba jàll na si jàmm mais gis naa ne daal en général moom sanction moo am quoi. peut-être que population bi ñoo wane seen mécontentement ci yenn côté ak gouvernement bi parce que boo xoolee ñoom seen parti yi nga xamante ne dañu booloo dañ leen a dañ leen a dominer de telle sorte que dañuy dañuy jël ñeneen sax ñoo xamante ne xamuñu leen sax loolu moom mooy wane ni loolu moom sanction la quoi. waaw sama xalaat daanaka yow na élection locale boo xoolee li ci ëpp solo sax mooy. Euh, jàll na ci jàmm. ben violence amu ci déjà quoi loolu rek euh, sante yalla la quoi bi ci topp mooy que ni carrément élection yi gis na ni ni ko doxalee ren jaar na yoon mais li ma ciy contesté tuuti rek mooy résultat yi nga xamante ne actuellement génnagul dèjà xamaguñ kenn ku nek foofu fété motax tax point boobu dafay xew na xaré wax tuuti quoi bon niñu ñu gisee élection locale yi euh amna solo mais li ñuy de tout rek moy euh, assas de conscience yi ñu gis bon euh, transfert de électeurs yi tamit gis nañ ko parce que tay lu melni ni yenn lieu de vote yi nga xamante ne nit ñi jot nañ ko gis lu melni école 27 li melni euh, ababakar si gis nañ nit ñi nga xamantene dañoo yor seen portable denc seen euh, yor seen euh, ki nu tudati euh yenn bulletin de vote yi ñu wara voter diko influencer population bi pour ñu votel ko seen candidat bon lool nak doona li nga xamantene ñong koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem bon lool mom du lu ñuy rafetlu ci élection yi parce que nit mom suñ demee ba ne élection gox goxat nit ku nekk war nañ ko bayyi mu tànn ku ko neex mu duggal sans ñu influencer ko. parce que jeunesse bi génn nañ en masse dem voter wa si mën nañ wax ne sax électorat bi dafa yokku parce que noté nañ jeunesse bi génn nañ en masse tamit aussi nit ñi voté nañ parce que tay ji ni mën naa wax ni euh, jeunesse bi bon mën nañ noté une réveil de conscience quoi parce que ñëpp génn dem voté ji comme nu mu waree daal ci ci jeeg ak teranga quoi waaw bien sûr parce que moom laa wax nii dama naan tey boo xoolee politique bi actuellement nii tey euh, sénégal ah dama naan jeunesse bi jeunesse bi instant ñoom la ñu war a ñoom la féliciter hein parce que tey boo xoolee jeunesse bi ñoom ñoo sanctionné gars parce que dañu war dépasser politique bi nga xamante depuis 1960 jusqu'à nos jours mooy politique bi nga xamante ne tey ni ñi fi nekkoon mu am beneen façon politique bu ñu doon def politique occident yi mais actuellement tey jeunesse bi dafa dafa taxaw carrément wala ne politique du loolu politique. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy Info TV nga daal di bës li nga xam ne cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.